salaamaaleykum chers amis téléspectateurs yéen ñuy ñuy seetaan ci Equivox TV votre télévision à portée de mais tey ñu am contentement àndaat ak yéen ci euh, fi place de l'Obélisque ñëw euh, dundu CAN 2019 bi nga xamante ni tey suñuy gaynde yi ñu ngi jongante fële nga xamante ni mooy Égypte tey nag ñu ñëw jël li nga xamante ni mooy Égypte transféré ko indi ko place de l'Obélix euh, ànd ci ak douzième gaynde bi ànd ci ak la population sénégalaise ak képp koo xamante ni rek yaa ngi supporté ñi nga xamante ni ñooy les lions de la Teranga donc dinañu ñëw léegi léegi may leen ambiance du amee fenn fudul seen seen Equivox TV votre télévision à portée de topp leen. Diak wala Baye ak mais dafa mos a bu leen di jox léegi léegi. yes boo xamante ni pour ñaan la Sénégal am ndam. yes dañ koy may gars yi balaa nga si léegi léegi may leen ko. non pare su paree rek bokk na yes pare ma kurus maa ngi dem ànd ak sariya maa ngi ci xaal di uti fannaaw amatuma soxla ci àdduna mar naan yenn ndox war a wuti ndox tey ji la wax naaj bi di wax taratuma wax amal mu sax mi ngi gox fu turu newul sant newul yàlla nekk fa lu bët gisul lu xel dajul xol ba yëg ko ne moo njëkk ne moo mujj ni moo feek ni moo nëb rangol tur jëma gi seey maa ngi feek allah allah allah allah allah la dara amul lu dul yàlla allah allah allah allah baay allah allah baay ñas allah baay allah allah baay ñas hey allah baay allah allah baay gars yi loxo ci kaw pour Sénégal saay saay pour yow score bi ñaata la war a waaw non score bi 2-0 2-0 ah score bi moom 2-0 c'est bon. foo teg loolu. waaw mais ci cadre football boo xoolee ci qualité yëpp tout les plans ñoom ñoo ñoo leen mën ndax ñun suñuy joueurs am nañ pourcentage boo xam ne mën nañoo dóor ku dul même équipe. mais li ñu bëgg mooy fulla fayda jom dem ba jeex. en peu de temps dinañu joxe coup d'envoi bi soo amee benn message boo leen di lancé. waaw bi message bi leen lancé mooy yàlla yàlla may ndam ndam bu sedd guy mais ndam li koy maye mooy jom fulla football. yàlla na yàlla may ndam ñu dóor 2-0 ci barke Seydina Mohamed loolu leen di ñaanal. Euh, qu'attendez-vous aujourd'hui de nos Lions. Inch'Allah j'ai vraiment nous tous on a des espoirs Inch'Allah aujourd'hui ils vont faire bon résultat que c'est pour cela tous les Sénégalais attendent. j'espère euh, on fera 2 à 0. premier but pour Sadio Mané deuxième pour Mbaye Niang. d'accord on vous remercie votre nom c'est comment. Euh, Mamoudou Sow. merci beaucoup on suñu lion yi nga xamante ni tey ñu représenté la nation et la république du Sénégal fële ca CAN 2019 ca Égypte lan lay doon ban message nga leen di waaw message message ma leen jox comme ni ñu xamee Sénégal jom la fayda def fula def jom def fayda comme li nga xam te ne mooy nekk début Sénégal un peuple un but une foi. waaw ah, maaleykum salaam. Ah, euh, lan mooy sa teewaay fii. équipe ngay supporter. waaw xam na Sénégal la faral match match bii di lay waajal kay. Sénégal nga fa. waaw waaw bien sûr. pour yow score bi ñaata lay doon. 2-1 euh, Sénégal. 2-1 Sénégal. Sénégal. mooy am 2. kan mooy dugal. xam na Sadio Mané ak Ismaïla Sarr. Sadio Mané Ismaïla Sarr. <laughs> waaw. vous êtes de quelle nationalité. américain la. ki nga xam tey jii pratiquement ñëpp xam ne c'est un international. muy Sadio maane mu def fulla def fayda wane ni carrément c'est un leader parce que tey soo waxee Maroc dañ la au moins yaa Mahrez nga wax Égypte ñun la yaa Salah nga ni Sénégal ñu ni yaa Sadio Mané loolu nag dafa war dafa nekk loo xam te ni vraiment lu mu war a wane la doon ñëw teg bal bi dëggu ko ñu fubal gagné li nga xam ne tey yaakaar naa mooy Ouganda te je pense bu ñu amee gëm-gëm bi ñëpp ñu nekk si ginnaaw Lions yi boole xoolee nekk benn incha allah rabbi suñu objectif mooy lan jël coupe d'Afrique ko Sénégal pour une foo fois dans l'histoire du Sénégal je pense que loolu mën a nekk gëm-gëm ak fulla incha allah rabbi li ñu bëgg danañ ko am. ah damaa am confiance si ñoom rek. nga am confiance si ñoom foo ko teg. fu ma ko teg parce que damaa gis la fois passée match bële passé lu ñu def sigil nañu sénégalais yi moo tax ma amaat boobu confiance. la fois passée mën na bañ me mën na bañ demee comme tey. a ah, en tout cas nous sommes derrière Euh, soo amee euh, benn message booy lancé Lions yi nga xamante ni jamono bi ñu ngi fale ci Égypte di représenter la République du Sénégal ban message lay doon. Ah, maa ngi leen di conseil pour ñu gën a yokk jom euh, fulla ak fayda ak fit waa ñu xam ne ne ñun daal sénégalais yi ñu ngi seen kanam daal sénégalais yi ñu ngi leen di. bàyyi xel am ñoom tam ñu bàyyi xel sénégalais yi. et sur le plan tactique tey soo amoon dara looy dolli Aliou Cissé lan lay doon. Euh, si le plan tactique pratiquement mbay Niang football na deux fois trois fois pratiquement mënugul fexe ba dugal na jël mbay ñaa teg ko si banc bi départ lom Mbaye Diagne Cheikhou kenn ku si nekk xam nga ni en toute sincérité par rapport ak football kenn mësul léegi football ak deux ah, xam nga am euh, nga nekk footballeur pare international am deux galons je pense que Cheikhou Kouyaté en toute sincérité war na mën a jël Cheikhou Kouyaté teg ko jël Salif Sané départ loo ko Euh, Mbaye Niang vraiment mu dem toog Mbaye Diagne jël parce que Mbaye Diagne au niveau xam nga euh, boo xoolee a niveau international Mbaye Diagne vraiment dafa ne am na lu mu wane tey jii nii euh, weesoo Mbappé weesu yaakaar naa Chris Mbaye Diagne moo moo moo avec 30 buts kon kooku waruñu maanaam ku mel ni kooku vraiment di ko teg ban a ah, ah ñun daal man daal loolu laa xam ne au niveau tactile xam nga vraiment mu kii ko départ tamit ak Henri parce que Henri Saivet keroog pratiquement bien vrai que Sadio Mané moo nekk l'homme de match mais ñëpp xam nañu keroog Henri Saivet a donné pour la victoire du Sénégal. Quel est message que vous lancez aux Lions de, de, de, du un message d'encouragement, hein, un message d'encouragement. Vu ce public ici à l'attente du match, je crois que le Sénégal va gagner et je les encourage, les Lions. Ils vont gagner parce qu'ils ont une bonne équipe. Euh, j'espère que ça peut aller. Oh, je suis venu supporter l'équipe du Sénégal. L'équipe du Sénégal. Euh, quel est le message que vous lancez aux Lions euh, Je voulais juste euh, leur dire que bonne chance et je souhaite que nous allons gagner, Inch'Allah.